marka yëglekaay yi tey taataan na lu bare bari loo xam ne ci information ñi topp Real Madrid yoon wu leer nañ wu nu mën a jaar nag ngir mën a jëm ca kaw li di bopp classement ba yoon waa ngoogu gis ngeen ni Espagnol de Barcelone bokk na ci futur gars yi ñu déglu yëgle yi te ñëwaat yaatal lii di yëglekaay yi alimentation générale Kën Bëgg Bamba euh, numéro 2 mi ngi toj li nga xam ne mooy dixième ak li ko wër ànd ceeg ki nga xam ne mooy le jeune député le tout nouveau jeune député euh, moom moomee nga xam ne bagage yu yomb yi moo ko yor tey dafa ne ci promotion màggal gii ñu jëm di màggalu xaadim rasul gi nee na ma alaaji Malick fi mu toll nii bagage yi stock bi dama koo yokk yokku cere dollu ñeex te lu mu jaayul baaxul lépp lu ngeen fa jënd yaakaar naa ne am na promotion bu mucc ay boo xam ne ma nga leen di xaar bagage yaa ngoogu daari alimentaire manqué wun dara diwlin euh, passé euh, diwlin vingt litres ngeen gis ko ci image yi euh, kanet nag daanaka eston ban fa teg ci taabal ji euh, soriwut ak conteneur ngeen gis bagage yi yaakaar naa ni lépp yemb na ci suñu place numéro téléphone yi moom ngeen di gis ci jeextalu vidéo bi bu ko defee lépp mën a def tawféex gars yi am nañ li nga xam ne mooy ndawal gu yomb goo xam ne loo ci bëgg mën nañ la koo peeseel suñuy gérant bokk gérant yi nga xam ne ñoo gën a mucc ayib ci dëkk bi maanaam di la teeroo ni ñuy teeroo buur bu ko defee lépp tawféex nga gis bagage yaa ngoogu ñu wan leen lii nga xam ne mooy numéro téléphone yi mu ngi noonu alimentation Kër Bamba numéro de ngeen gis ko ànd ceeg Ousmane le tout nouveau jeune député lii di numéro téléphone yëpp a bu ko defee bu ngeen wootee man ngeen a fayee wéef mën ngeen a fayee li nga xam ne mooy kàppee mën ngeen a fayee orange money mën ngeen a fayee sax lii di ah, Tigo Cash équipe bu mucc ayib di leen xaar équipe baa ngoogu gars yi équipe bu mel nii est ce que am na ah, ci ñuy liggéeyaloo nit ci biir dëkk bi ndax cawarte ga ma a gis ak li nga xam ne mooy mën a teeru client kanet yi ngeen gis ndox mi ay pack ak boisson ah, façon bu ngeen bëgg am na fa ceeb ak diwlin en gros demi gros muy parfumé muy ordinaire muy lépp loo xam ne jëm na ci xeetu yu ngeen mën a dugal seeni waañ ci màggalu Tuubaa gi boisson yi nag amul boo xam ne stock ban ci defar mën ngeen ci dara diwlin 20 litres yi ak yeneen ñama-ñama yi nga xam ne sax yu yees peq la yoo xam ne daanaka tudd nu ko ci vidéo bi waaye lépp mboole seen bu ngeen demee ci suñu place euh, fële euh, ca 10 euh, deux voies yi nga xam ne bu ngeen foo wootee wala ngeen dox ak seen bopp lépp dana taw féexa soowum na tamit soow yu mucc ay bi gone yi ak li nga xam ne mooy boisson sachet yi nga xam ne lépp daal daanaka ci mboole seen ma nga ca suñu place équipe bu mucc ayib di leen fa xaar gaaw leen def seen i commande waaye baraj baraj jéeg téll ji mën naa bari waaye doole yëmul ci mim réew ci li nga xam ne mooy liggéey bu sell te mucc ayib gaa yi maa ngi ci tayba tayba yi nga xam ne képp koo xam ni euh, bëgg nga sab tabax ci commencement fondement ba yëkkati say caabi ni la ko jabb ba pare euh, di kenke ak yow ci mbégte mi ngay ànd ak sa njaboot dugg ci sa biir kër kenkaayri bi loolu ko tax a jóg ndax liggéey bu mucc ayib bi ko ñëpp xamee gaa yi maa ngi ci lamp yi nga xam ne mucc na ayib lamp yow mi yor sa wala lépp loo xam ne yor nga ko ci ab tabax commencement laa lay wax ba foo man di jëm ci tabax ji immeuble yi bu la neexee buddil ba san euh, suñu lamp yaakaar naa ni conteneur yi ca wàccee car masha allah bari na njëgg yëpp na bitim réew la jóge liggéey ba mucc na ayib beneen bi ci des mooy Moussa ak ñi mu àndal ak i rakam ngeen gis karo yi nga xam ni yaakaar naa ni dëkk bi karo bu yomb moom boo ko weex ci nun nga ko mën a amee ciment bu yomb naka noonu fer ciment ba ci béton ak suuf lépp loo bëgg ci quincaillerie générale am na ci suñu place waaye nag gars yi peinture originale bi ko partenariat bi mu ngi ci suñu loxo maanaam lépp loo xam ne jëm na ci peinture ah, ci kaw ba ci suuf maanaam peinture xeet bu man di doon maanaam seratex ba ci li nga xam ne daanaka andiwil andiwil maanaam boole seen bi yëpp rek bu ngeen ñëwee euh, fële ca Taïba Taïba yi ci marché central nga xam ni euh, daanaka di ngeen fa fekk lépp wala ngeen woote ci suñu numéro téléphone bu ko defee ñu jokkoo ak ndaw yoo xam ni ñu ngi sikkumu di jaamu seeni soxla di ay taalibe yoo xam ne yaakaar naa ni jaamu soxlay askan wi rek moo leen tax a jóg place baa ngoogu beneen bi ci des nag ma dugg ci léegi muy mbirum maanaam li nga xam ni mooy plombier yi lépp loo xam ne jëm na ci ay sées anglais ay saas sangukaay yoo xam ni mooy dernière génération yi baignoire yu mag a mag yoo xam ni lépp taw feex ci image yi ngeen di gis nii beneen bi ci des mooy peinture bi waaye daf maa ñor euh, peinture bu originalité fii ngeen ko mën a am ci Taïba Taïba effice moom Taïba Taïba yi ñoo leen di may revue de presse bi ci Aladji Malick TV. sama gars yi ma nga noonu ma leen bu baax a baax bégg leen ànd beeg Aladji Malick TV sport am na solo yàlla na jëm kanam ci information yëpp yi nga xam ne ñu ngi ko fi taataandandoo euh, benn par benn ndax loole nekk na lu am am solo ci biir seen. yëglekaay ñu commencé ko Marca moom mi ñëw ci xët bu njëkk gis ngeen xët wala mu indi yaakaar naa ni équipe yi nga xam ne nag pintoon ñoo nekk ci kanamu Real Madrid ci ay match yu am solo moo xam Ligue des Champions moo xam Ligue des Championnat d'Espagne waaye ñu gis ci Espagnol de Barcelone ak Atlético Madrid bi nga xam ne yaakaar naa ne ak Villarreal loole dana nekk lu am solo ba leen ci topp mooy li nga xam ne mooy Ligue des Champions bi kii nag euh, di international belge di euh, Thibaut Courtois moom nag mi ngi quinzième Ligue des Champions ba mu teg ci loxoom di jooram joxañ ba loole nag misaal la mu bari boo xam ni ñi ngi topp Real Madrid dañ ko bàyyi xel Carlo solo tamit ak yi gaayam ñi ngi waaj lu rëy rëy ci bile équipe xam naa ñun dana dellusiwaat ci kanam tuuti ci li nga xam ni moo nekk bile programme maanaam entraînement yi Real di entraîné ak Barcelone loolu day di histoire ndax gars yi jóge nañ trêve international kenn ku ci ne football nga ak sa équipe nationale ba ñëwaat kon li des yaakaar naan dañuy bàyyi Aladji Malick TV sport seere ko ah, ci YouTube bi yéen ñi fiy topp TikTok bi nag ñu ngi jégalu gars yi kaas nee nañ foofee bariwul luñ fay jaar mais nag ñu ngi jégalu ah, bu baax baax Barcelone nag dañ fay dem laal ki nga xam ni mooy air Sénégal international moom dana dem Barcelone bu ko defee cëppeel nu ci aérodrome ba ñu wàcc ndànk dugg ci locaux yi fii la di Mundo Deportivo bañ demee ki lëmbe jamono mooy Dani Olmo mi nga xam ne nag Xavi di ab entraîneur am ci suufu kaay bi bari na lu mu coppati démb ngeen xam ne Xavi nag démb doon na jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoo nekk Mundo Deportivo la Corogne wax Dani Olmo maanaam bëgg-bëgg gën ci am ban ko fekkee Allemagne ak li nga xam ne tamit mooy taxawaay bi mu am di bu yees peq boo xam ne gone gi bokk na ci projet de jeu bu équipe bile di Barcelone Pro C2E bu Sénégal euh, fédération sénégalaise de football bi nga xam ne yaakaar naa ne fi mu toll nii euh, jot na ni wala yëg na ni arbitre bi doon arbitré euh, seenu match ak équipe bi la nga xam ni moo nekk Burundi équipe arbitre boobee bokk nañ ko ak Sénégal maanaam porte plainte ngir taxawaay bu mucc ayib bu nu jàpp ni defu ko ci bile match ndax match boobee gars yi danoo jàpp ni danoo faral Sénégal ndax faral Sénégal waa Burundi jàpp nañ ni yi ba nekkul ci surface préparation yi ko ci Aladji Malick TV mais Rewmi Sport moo ñëw dëggalaat sama information boobee te it arbitre bi yaakaar naa boo amul sens dëgg-dëgg mën naa am jafe-jafe ndax vidéo yi boo ko xoolee xoolaat ko di nga xam ne Sadio Mané benn tànkam mi ngi ci pelant yi baneen tànkam mi ngi ci biti boo doon metre tànk bu njëkk bi ñaata euh, maanaam centimètre la def ci biir nga mètre ñaareelu tànk bi ñaata centimètre la def tànk bi ci biti moo ëpp damaa xamul nag arbitre yi may suivre mën nañ ma tontu ci commentaire yi Sadio Mané mi ñàkk bopp championnat bi ci tribune sport ak ñi mu àndal loole la yëglekaay bi andi ci xët wu njëkk wu mu ko yaatal moom mii di euh, yëglekaay bi Sadio Mané ginnaaw ñàkk na bopp classement bi waaye tamit bu ñu gisee tamit li nga xam ne daanaka mooy aventure maanaam la ñu leen ëppalee bariwul benn yoon maanaam bu ñu ko xoolee yaakaar naa ne warta sori benn yoon euh, ndax ñoo tolloo ay poñ mais ay goal différence la ñu xawee ëppalante ñoom ñaar ñooñee. beneen yëglekaay boo xam ne tamit ñëw na ci Papa Gueye mi nga xam ne nag kenn ko ci ne nangu na xam-xam bu mucc ay bi nga xam ne moom Alaaji Papa Gueye def na ko ci match bu Sénégal mujj na ko football Papa Gueye nag nekk nag meilleur sénégalais ci weer bi nga xam ne moom la ñu yebbi gars yi loolu ànd nañ ci ndax xam naa ne commentaire yi ci euh, li nga xam ne mooy post euh, bi ma ko dugalal ci YouTube bi ñëpp apprécié nañ nee na na gën a góorgóor tey jàmbaar la na am taxawaay boo xam ni bu ama am solo ñu ngi koy gis ci commentaire yi loolee ñu gërëm leen ci euh, sant leen ci bu baax a baax ndax Papa Gueye ko ko xam-xam ni jàmbaari fàkk tëdd la te bu duggee ci terrain loolu ñuy wooyee Gaynde Njaay moom lay wane ci record yëglekaay moom mii di alaaji Papa Gueye ñu gërëm ko sant ko ci ànd beeg ñun tamit am na solo Aladji Malick TV euh, information yu wérti wóor ci kanam tuuti yeneen information ñu yaatal ko bu baax a baax gërëm leen sant leen sàkku ci yéen abonnement yi beneen bi ci des mooy gàmmu gi foo ko waaye man de defee ñu ngi lay ñaanal paasu jàmm dem ak jàmm dikk ak jàmm ci barkeb Seydina Muhammad mi xam ni moo waral guddik yonente bi sallallahu alayhi wa sallam